waxuñu loolu loolu du débat bi. Mm-hmm. que ni conseil d'administration mën na autoriser directeur mais dañu ne dépense yi la ñu def waaye yaa xayti xanaa war nañoo mën a wax ni nangam lañ jox Charles ci li nga xam ne moom lañu conseil d'administration autorisé loolu la ñu ne xaalis bi amul dara lu justifié fu ñu ko dugal. kon wax gëm non mais dama ne. dama la question président la ci cadre président xam nga cadre président. président man président atewul. non cadre président président atewul du ma président man je procureur la ci dossier boobu. c'est bon procureur la dama la laaj yow man ak yow Sénégal bi seetaan. non c'est bon ndax li procureur de la République du Sénégal wax. nangu naan ko bu la nekkee mu doy la. yow boo nangoo bu ñu dépensé sa xaalis bañ la justifié. dara dama ne amul si dama ne. yow la le procureur de la République nga xam ne moo fi nekk di atte nangul naa ko bañ koo doy procureur attewul de moo ni taxaw ni je parle devant les Sénégalais et je l'explique demain moo ni dossier bi moo ni dossier bi baaxul bu mu jël toog doo ko delloo OFNAC wax nga juum nga ah, procureur du atte on va juger procureur du atte procureur mooy atte Bouba s'il te plaît procureur du atte yaa ne procureur mooy atte procureur du atte Bouba c'est l'exploitation qu'il faut faire de ces rapports là xaar nañ ko mujj na yegg si Bouba à toi la parole si gars yi gars yi seen yaram tàng na de bon en fait en réalité man man dama koy dama koy dama dama koy xëcc rek si si loo xam ne je pense que euh, OFNAC ak Cour des comptes ak yu bëri yooyu yëpp. il faut il faut ñu d'accord si dara moom mooy. Euh, li ñu naan li gars yi wax sànq naan lu ne lu ne fànn kenn du ko jeex euh, ñun ñun ay ay africain lañu ay sénégalais lañu bu ñu waxantee dëgg rek xam nañ ni comme j'ai l'habitude de la dire suñu feebar bi gën a rëy mooy luubal alalu askan wi te loolu euh, ay firnde daf ko war a daf ko war a prouver moom mooy que si si si mandat wu euh, président wala régime bu fi mënti nekk normalement ci li ñu xam ni boo nekkee Afrique ñu bëri dañ leen war a jàpp dafa war a nekk un truc boo xam ne c'est boo toogee deux ans trois ans jàpp ñu kenn koo xam ne dafa ne xaalis problème y' a problème parce que am bu ñuy convoqué yàlla xam na ni ñeneen ca kër yee di seetaan sama yaay te mooy jël exemple ndey soxna mbubb mais boo ko nee ay ay OFNAC ak ay Cour des comptes ak ay yooyu interprétation beeg lan lañ ci recommandation day mel ni ay chinois pour ne pas diir ay euh, comme dañuy wax waaw dañuy wax allemand balaa ñuy foog ni li xew Chine moo tax may convoqué chinois moo tax ñuy war di indi mbir mi ci table bi Euh, bu ñu bu ñu amee benn régime bu ñëw après neuf ans wala après sept ans ou huit ans ñu teg ci kaw table ñu ne lan la ñu régler si suñu problème boobu xam ne man gëm naa ni mooy suñu jàngoro bi gën a rëy mooy que Pape Djibril mii na mu meloon daaw ndax noonu la mel ren sans me convoquer quoi que ce soit otom ba mu daan dawal yaa cinq ans ndax moom la yor ba tey doomam ja daan jàng fii ndax moo fay jàng ba tey këram nga mu dëkkoon ndax fa la dëkk ba léegi sëram bi mu kii woon fan lay liggéeyee copain bi mu àndaloon est-ce que du moom mooy bras droit am tey jii nii moom la recase yóbbu ko fële pour mu koy mën a protéger je pense que foofu la ñu war a dem bu boobaa dinañ mën a gis exactement nit ñi population yi mën a gis que problème bi ki ñu jël suñu suñu suñu ay carte jox ko ko mi ngi koy le mais bu ñu gisee que ni. la plupart des gens yi nga xam ne ñoom la ñu teg loxo day fekk ñi si gën a bëri du ñu ànd ak ki nga xam ne moom moo jiitu réew bi dafay teexel moo tax ñuy war a éviter di jël affaire bi di ko yóbbu ci côté technique trop ñu seet ko rek ci njort parce que njort bi aussi dafa am solo c'est un petit village on est quinze millions réer fi bëriwul jaxase fi bëriwul est-ce que aujourd'hui ñu ngi dund si benn état boo xam ne on se rend compte que les choses de changer ci côté boobu je pense que loolu la ñu war a gën a mën a convoquer tey mais régler commission ñu ñu ñu xool affaire bi def ay recommandation foofu la ñuy nekk suba ba ngoon parce que am na ñu jël alalu réew mi am na moom laa yow jarul ngay dem ci ci kii yi di xool te gisuñu dara loo xam ne gis nañ ni. ñii ñu ngi leen di teg ci yoon parce que aussi on n'a pas boo jëlee euh, sàcc boo ko jàppee da ko yóbbu police doo ko ne xaaral fii ba suba wala ginnaaw suba ñu xool nu ñu ñuy def ak yow donc je pense que li tax xelu nit yu bëri tey mooy que gisuñu dara. Mm. lu firnde que ni ah dañ fi dégg coow lu rëy loo xam ne dafa mérité ñu taxaw saytu ko mu leer mais doo ci gis dara. kii day wax fii ñuy wax waxi interprétation mais en réalité ñëpp dañuy xam que ni il y a anguille sous problème donc je am solo ba am solo pour man. corps de contrôle yi ñuy def nii yëpp amul njëriñ bi du loolu njëriñ bi mooy que est-ce que l'Africain aujourd'hui mën na xool nguuram mu ne kii de mi ngi régler sama problème nit nit ñi ñi ngi bàyyi nañu sàcc alalu réew mi est-ce que tey jii nii le Sénégalais peut dire que tey jii nii par exemple depuis 2012 ba tey jii nii est-ce que ci mbir moomu yan jéego lañ ci dox te loolu firnde rek moo koy mën a teg nga teg ne kan lañ fi jàpp kan lañ fi jii lan lañ fi leeral. mais saa yoo seetee dañuy wax commission dañuy ubbi reñ enquête mais à la fin de la journée mm. les seuls dossiers yi nga xam ne ñoom ñoo aboutir malheureusement quatre-vingt-dix-neuf pour cent c'est des dossiers d'opposants politiques te loolu aussi moom mooy tax peut-être ñu bëri di di am ay yenn xel ñaar ci interprétation wu yenn yenn yenn yenn. Mamadou Mamadou Ngom ma laaj la yow daaju ministère des sports nga sañ nga génne koppar sans pièce justificative di nga ko def. <laughs> non loolu <laughs> loolu amul benn gestionnaire. parce que avant tout. gestionnaire bi. moo tax présence am à plus d'un titre. intéressant voilà peut-être euh, si casquette boobu sa taxuloon ma kii mais dinaa répondre parce que tey dañ am voilà voilà amul problème am diggante Ablaye Cissé lii mën na ko. dëgg la dëgg la non je veux expliquer parce que tey. Birima tu as dit que étudiants yi signé nañ est-ce que cela peut constituer une pièce justifiée. waxuma loolu de. dama laa njëkk ne la dama la njëkk dama la ça a été autorisé par le code d'administration pour les 86 millions waaw mais c'est autorisé par le code d'administration laa la damay la je suis désolé mën nañu riwaay léegi émission bi dama ne egg ma foofu avant foofu raw nu jiitu hmm. du ma toog du ma wax la nëbbatuuma li ma wax man université laa ñibbi doo fa ñibbi hmm. man fa laay dem kon du fi wax lu amul ngor sama ngor moom dama ne dafa lu ñu kii mënu ko dindi conseil d'administration man na sax jóg ne nañ subventionné événement sàngam am na pouvoir bi une fois mu def ko maintenant directeur COUD moo koy exécuté bu ko exécuté le Cour des bu ñëwee moom lay xool bu ko xoolee mën na ci mën na mën na xool procédure ndax respecté na li conseil bi wax wala respecté conseil bi wax mu def recommandation li ma la wax kenn mënu koo dindi lii la wax et je confirme maintenant nag maintenant kii jël na wala kii damay la li ëpp solo li tax man léegi mënu leen a nangu xanaa wax ji yëpp dossier bi ko liggéey pare procureur la tey le procureur moo war a moo war a. su procureur suñu fàttali ko à l' époque moom Seynabou Ndiaye Diakhaté coow lu bëri am na seen diggante ah. attention. bu ñu waroon avancer ci débat bi doon na baax de. <laughs> Ah, voilà bu ñu non c'est qu'on est sur un point. vraiment c'est waxuma ci cour des comptes bu fi xewoon la. on se rappelle des faits. Mm. ñun dañuy fàttali kunte mun na ko bañ. mën na ko nangu Papis tu es témoin Seynabou Ndiaye Diakhaté dans le JT ici. dafa bi mu delloowee dossier bi procureur lu mu ko wax yow yaa deful xanaa sa liggéey. waaw loolu beneen débat. Ah, voilà man dama àtte loolu yëpp non man may àtte diggante rek of na ak procureur. jot na fi am ah. mais li am dama ne les faits sont là. elle était dama ne mais Seydou Ndiaye Diakhaté malheureusement moom du ma instruire un dossier. ok c'est le procureur moo instruire dossier dans ce ah, pays. alors alors Papy sur l'exploitation affaire non. mooy li ma la doon wax benn galgal bu ma ko dugal. voilà non mais dama si non non non mais je veux je veux rebondir. sans facture. waaw je veux rebondir parce que bu fekkee c'est pour dire un mot et me taire. je pense que allez allez va vas-y kon yeggalil sa sa sa <laughs> voilà donc euh, on explique si c'est dans l'esprit de l'émission <laughs> voilà parce que tey moi l'esprit de <laughs> comprendre nañ ko parfaitement et je pense que loo mun di wax jàkkaarloo aussi hmm. xam ne beaucoup de problèmes se règlent à hmm. jàkkaarloo mais hmm. avant tout nous sommes des des Sénégalais ñun ay fonctionnaires lañ et je pense que ne man li may tuuti tuuti yëpp quand même suma carrière moo ma gënal lépp xam ne tey esprit politique la parce que mm. Macky Sall il est là mais léegi politique carrière am euh, politique euh, daanaka mandat am jeex mm. donc amul benn gestionnaire au monde boo xam ne dina teg carrière am mu jaral ko bëgg lu neex nit muy foye quand même ay keesi état xam nga dafa yomb ci journalistes yi la plupart ils disent euh, l'argent du contribuable moi je peux jurer sur le Coran que la 90 pour cent des journalistes li may contribuer contribuer wuñ xaaj je peux le jurer en tant que fonctionnaire contrôleur des impôts. Mmh. Contribuer, contribuer, pour contribuer non ça? je veux dire leur contribution par rapport à leurs impôts. Mmh. Mais, ah, mais ah. non non non mais, mais non non moom la non, non, non d'accord je suis d'accord. c'est quoi le rapport c'est que voilà non non mais tu as la chance d'être des millions non non non mais mais laissez-moi parler xam nga xam nga bi Birima Birima bi muy wax santal yàlla non non non mais laissez-moi développer ba daaneel bu ngeen amee ko lu ngeen wax ngeen wax ma ko xam nga mais on me laisse ma daaneel bu ngeen amee xam nga doyen doyen vous avez pris dix minutes pour personne n'en parlait voilà non donc bu ma paree comme li ma wax li nga doon def mën naa ko moi je suis politique en ces choses là yàgg naa ko xam affaire yooyu non non non mais on est dans un débat civilisé voilà donc on nous laisse moi quand je dis ça quand je dis ça mën naa même l'exemple de TFM parce que le dossier de TFM. Ah, non waxuma ko sax mais dama. ko joxe parce que tey TFM li muy contribuer si réew mi bëri na comme yeneen organe comme ñeneen ak ñeneen mais ñun suñu rôle dañ koy def xam ne lii dañ ñuy fay pour ñu def ko donc taxawuñ fi di di di wax naan di tagg kenn wala leneen ak leneen après tout on est là pour l'état du Sénégal mais je veux dire ce n'est pas niveau de contribution ki permet de dire que war nga wax wala waroo wax mais la façon bi ngeen d'estimiser eh, eh, eh, l'homme politique jàpp ne képp kuy politique sàcc la je ne suis pas d' accord. parce que tu es politique. non non non non déglul rek. déglul non déglul non mais déglul je vous dis. non non non. non non mais non mais mais mais mais ça fait mais mais mais der non attends mais vous mais arrêtez avec les non mais je vous dis der der der moi ça fait je suivi Jakaarlo. moi ça fait des années laa wax je suis jàkkaarloo depuis des années. depuis des années maa ngi suivre jàkkaarloo quand même. maa ni ma mën a waxee jàppe lu pertinent ci li Bouba wax wala lu Pape Djibril wax parce que comme ni ma waxee man vraiment les gens vous apprécient par rapport à la qualité. du débat bi. waxuma ko pour tàgg leen sénégalais ko wax mais bu ma ñëwee toog jàkkaarloo aussi. ni ñuy defee ñun benn procès mettre nous au banc des oui. accusés nous aussi war nañ mun a toog parce que intérêt bi mooy luy defar réew mi kese mais bu ñu gisee parce que ni ay homme politique di yàq réew mi noonu la ay journaliste di yàq réew mi ñaata ay kër ngeen tas ñaata kër ngeen tas ñaata dundu ab doomi aadama ngeen yàq mais tout ça non non je vous dis dëgg la mais c'est la vérité non non non mais c'est la même chose gis nga réew mi buñ koy defar nañu nangu jël ku ne responsabilité am mais du ngeen ñëw taxaw oto biñ ma jox Charles di wax en tant que homme politique ñu jox ma oto oto bi du pour man mi ñu nomee moom suba buñ ma dàqee jël ko otoom la. c'est un véhicule de l'administration mais qu'est-ce qu'il y a d'envier dans ça. 4-4 bu ñuy dawal wala lu jara wax moom la a été ay principe ngay non non mais ça je vous dis que. ay principe non non mais yow doxewul noonu. non mais c'est ça qu'il a voulu dire parce que bu ñu nee dañoo jël suñu alal jëndee ko ay 4-4 mais lan mooy 4-4. est-ce que mun nga mun nga mesurer. mun nga mesurer l'action de l'État à travers. de l'État. non mais laissez-moi terminer wala ngeen jël parole bi. laissez-moi parler ma daaneel d'ailleurs bu ma nee ma daaneel. mais je ne veux pas qu'on l'action de l'État à travers l'achat de véhicules état tey boo mu nee liggéey si sa kër ñëw ba fii c'est parce que l'État t'assure une sécurité soo mu nee ñëw ba TFM liggéey l'État une sécurité defal la courant defal la leneen ak leneen l'État peut faillir mais il ne faut pas réduire l'action publique à l'achat de à l'enrichissement illicite ay nit lañ am na ñu koy def te li ma d' accord mooy li bu Bouba wax bu amee nañ teg ñëpp au même pied dégalité o on tous d' accord. Mm-hmm. mais ne jetez pas l'homme politique jàpp ñun ay fonctionnaires lañ jànge dans des écoles publiques ñafe.